formel fii ci Sénégal saa su ne rek day wëy di dem kanam waaye tamit bokkul ak secteur formel public wala sax goo xam ne privé la ay nit a ko moom loo xam ne tamit dañ koo daal di jagleel ay këyit loo xam ne dafa leer lool. waaye kat secteur informel am na muy doxee am noo xam ne kat ci seen yorin noonee daal lañ ko bëggee secteur bi nga xam ne day dajale ay activité yu bare bëri foo xam ne day ruusee li nga xam ne kat wàllum koppar day employé ay doomi aadama ñoo xam ne kat ay ndaw la ñu waaye ñu bëree bëri nag Sénégal la dëkk am ñoo xam ne tamit ñoo fexe ba li nga xam ne daal mooy seenub liggéey mu gën a ñoŋ waaye tamit tàggat leen fexe ba ñu bokk ci askan wi waaye ginnaaw jeexital yi nga xam ne kat am na ko ci wàllum koom secteur informe bi nag moom daanaka dafa mel ni dañ koo daal di ah, nasaxal mu daal di lompoñ nekk loo xam ne sax dañ koy jël en charge ci stratégie yi nga xam ne nguur kat moom lay daal di tegal ba tax na loole daal day tax rek mu diggu doomu kon ci boppam cas yu bare bare ci état bi tax na ñi nga xam ne kat ñooy benn ngàll bi bokk ci nguur gi ñoom ñoo ko war a mën a daal di fulaal bu ko defee tamit ci entrepreneur yi nga xam ne ca la ñu bokk ñuy fay taxe ak i impôt ak i patente bu ko defee tamit ñi nga xam ne ñoo ciy jëfandikoo mu am doole boo xam ne day tax ñu gën cee gis seen bopp waaye bu fekkee ne dañoo bëgg leen a dimbali waaye tam fexe di leen di déguerpir maanaam fa ñu toog ñooy leen du fi di leen dàq ak leen dut baaraam loolee du baax waaye secteur bii nga xam ne mooy secteur informel delluwaat ci ay at a ngi nii daanaka sax muy dundal akub askan waaye tamit la ñu gën a mën a def daal mooy ñettee liggéey ñu gën leen considéré kon foog ñu sampaat laaj daal di xoolaat saytuwaat ko bu ko defee ñu mën a indi ay joyanti ay commerçant lañu dëgg la waaye ñii dañuy ñaw ñii nekk restaurant ñii nekk coiffeur ñii de ay menuisier wala ay chauffeur wala ñoo xam ne sax dañuy raxas oto ak i courtier kon ay entrepreneur yu ndaw lañ yoo xam ne ñoom ku leen jàppalekat ñu dem kon tamit am na solo lool bu fekkee dañoo bëgg dugal seen loxo ci développement bii kon tamit ñu bàyyi di leen teg bët wala sax di leen rogo jeeru mu nekk xeetu xoolin boo xam ne baaxul te ñoom bu ko defee état bi tamit ak ña nga xam ne ñooy ndeytee fii ñu mën leen a dimbali ndax participation ci entrepreneur ci secteur solidaire bi loole mooy tax koom gi gën a duuf